loo xam ne juróomi baaraam lay am newul ci cëru nit newul tamit ci cëru mala. waa mais loolu juróomi baaraam. waaw. ah wax dëgg yàlla loolu. te chaque jour yaa ngi koy gis. chaque jour koy gis. waaw te léeg mu romb la. xanaa xanaa saret la saret. nekkul ci nit nekkul ci mala. te juróomi baaraam la am. mais attends yàlla moom nit ak mala la sax. te mu ngi juróomi baaraam de. non non non loolu moom yàlla sax ko. li nga laajte nii sa waay doy na waar de. Ah? si cëru nit nekkul si cëru mala. waaw te juróom baaraam la am. Eh. <laughs> <laughs> ne juróomi waaw waaye newul ci cëru nit newul ci cëru mala. Hmm, loolu Fall may naa la ba cinq nga compté waat nga xalaat. juróomi baraama. Ah. waaw te newul ci nit. newul ci mala ma ci tane dimbale ma ci waaye. <laughs> juróomi baaraam la nekkul cëru nit. newul nekkul tam ci cëru mala. ah loolu de moom xaw ma moom. gannaaw la ngay liggéey. man menuisier la te li ma la laaj ne mënoo ko xam. ah waaw loolu moom sax dëgg yàlla bett nga ma laaj ma question boo xam ne moom jaaxal na ma.